asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci seen chaîne bi muy Serigne Djily TV ak ci tiktok yi compte tiktok yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci aljuma ji di leen wax aljumaa mubarak di leen ñaanal jàmm ak tawfiq ak saadatu daarayni di ko sàkku ci yéen saa yu nekk comme ni ñu leen koy faral di leen defa leen ko may ay tegtal yoo xam ne yaakaar na dina yomb def te muy tegtal yu am njariñ benn yow wala ci sa njaboot wala boog sa alal wala li ci li la wër loolu nag moo tax tey ñu indi leen benn may leen benn tektal ci lu jëm ci gàllaaju kër xam nga ne doomu bi lépp lu yor da ko war a aar wala lépp lu mu yor ci loxoom wala bokk ci ci li muy dund moo xam këram la moo xam njabootam la moo xam moom ci jëmmi boppam la sax ndax nit ki lu koy gàllankoor dafa yomb te bari te lum ci gis lu néew a néew la moo tax rawatina lu dem ci wàllu kër nga xam ne ci ngay dëkk ba ngi caa dëkkal sa njaboot ba ngi caa dund xam ne lu baree bare mën na caa wàll si wala sax nga fekk ko fa wala sax nit di ko fa indi ngir ab safaan. Ah, lii nag day tegtal boo xam ne am njariñ la ci ñaari kër ko def dana barkel te dana aaru muy juróomi doomi paftan mooy doomi paftan yi mel ni bal boo ci amee juróom day fekk nag wut nga suufa soronam wala ñu la ko soo koy nga jënde ko dugub maanaam jàng faatiya sotti fa dugub soo ko ca suuf sa bu ko defee da ngay ubbi doomu paftan bu nekk nga def ca biir suuf sax maanaam suufas xorolom daal di tëjaat ci juróomi doomi paftan yépp bu ko defee nag boo ñëwee ci kër gi wala sa sa sa pàkk koñ bu nekk nga sol fa benn doom faftan ca digg ba benn muy juróom soo ko defee nag soo fekkee mën nga wut bant bu wen bant bu wen xam nga ne garab bu wen du lakk maanaam daay ba amoon ci àll bi wen moom yàlla da ko ciy musal loolu nag kiimaan na ne suñu borom di def am na ci lenn ca ci ci ci ci ci rabam yi yoo xam ne duñ lakk am na ci renn ci lenn ci gàncax gi nga xam ne duñ lakk comme lu mel ni nguutuut fi mu ne tàggum nguutuut lu daay rëy rëy rëy rëy fa la koy bàyyi loolu kiimaan suñu borom la wenn nag ci la bokk bu ko defee nag nga am ci bant bi nga jël sa mbubb lëmas ko ci bantu ween bi bu ko defee nga sol ko ca digg kër ga moom it gàllaaj la gog goo xam ne kenn du la mënal dara te ñaare kër ga loo dund dana la yomb incha allah nga seet bi na teg teg bi ma a jox nag dafa ko ci tegtal yi mag ñi daan def ndax loo gis rek yàlla def na ca baatin def na ci njariñ loo xam ne du jeex danga cay xam leen rek day la ci ëpp nii bokk na daan ci mag ñi lañ daan def ci seen seen seen kër wala ci seeni barab ngir lu baree bari yomb leen ak it ngir kon soo ko mënee def baax na buñ la ko mënee defalit baax na waaye nga bàyyi xel ci ne bu fekkee nit dala koy defal ñaan moom lum tuuti tuuti dee koy weexal ndax bokk na ci liy tax mu am doole loolu la arab du tudde al bayaad kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey jii ngir baaxe leen ko muy gàllaaju kër ndax xam nga ne kër dañ ko war a sàmm ci zahir ni nga koy sàmme ci di ko toppatoo loo am jaf def ci ngir mu rafet ngir mu baax dëkkuwaay ya set dëkkuwaay ya baax di tabax di yëkkati ay étage di fa def matériel yu cher da nga xam ne noonu nga ko war a aaree ci wàllu baatin ba dara du ko war a mën a yàq wala dara du ci wala man a wàll si loolu it nanga ko bàyyi xel bu baax a baax ndax alal loo sàmmut rek ci zaaxir mën naa xëy yàqu muy ci sa jëmm muy ci sa njaboot muy ci alal jow moomal sa bopp kon mbokk yi ngeen woy di abonné ci chaîne bi ak di tasaare vidéo yi ndax bokk na ci liy dundal chaîne bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.